asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti bopp xibaar yi. banqaas yu nekk di liggéey ci roon nguur gi ñooñu la ñu wax ne am nañ kopparu bor bi war a ëpp ci benn billion ci xaalisi si te bor bi nag ñu ngi ko amal banqaas sub social sécurité bi kàddu gi nag ministre bu ñu dénk wàllu kopparu réew mi moom moo ko gaaral ci kanami péncum réew mi ginnaaw ba ñu doon def ab gestu jëmale ko ci report bu ñu bindi si atub 2019 nguurub Gambie bi ñoom nag si jamono ji ñu ngi xamal ne groupe député bi ñàkk nañ koppar gi war a toll si juróom-ñetti téeméeri million ci xaalis si ginnaaw ba ñu teggee naka juuti bi ci kaw maalo yi dee bayee ko sa bitim réew di dugg ci si biir réewu Gambie bi kilifa yoo xam ne nag ñooñu la dénk banqaas bi saytu wàllu xeetu drogue bi ci biir réewu Gambie bi ñoom nag wax nañ ne ci fan yi nag drogue yoo xam ne jàppee nañ ko sa diwaanu West Coast region ak North Bank region buñ ko xaymee war na moo dem nag lu ëpp ci benn million ci xaalis dalasi mbokk yi looloo doonoon bopp xibaar yi ñu taxil bu ñu dellu see yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi bu ñu sukkandekoo ci ndaje goo xam ne kilifa yi def nañ ko si pencum réew mi pour naka gestu jafe-jafe goo xam ne naka askan waa koy jànkuwanteel te mu dem naka ci banqaasu nguur gi ku fa njëkk a teewlu naka di ministre bu ñu dénk wàllu kopparu réew mi mi wiyoo si Mamboure Ndiaye ci laajte goo xam ne naka mu ngi koo tontu mu aju naka ci report goo xam ne social security seeni banqaas bi bindoon nañ ko naka ci atum 2019 mu ngi wone ne banqaas yu nekk di liggéey ci ron nguur gi ñu ngi amel bor social security te bor bi dem na naka ba ci benn billion ci xaalis hali sidala sen bor goo xam ne naka banxaasu nguur gi ñu ngi ko amal so social security tax na naka banxaas bi mënuñoo fay pension ñenn nit ñoo xam ne naka ndar keppal nañ seen liggéey bi ak tamit mu ngi leen di isil naka ab dellu ginnaaw le ko naka ci seen wàllub liggéey bi kilifa yoo xam ne naka ñoom ñoo toog si pencum réew mi si jamono ji ñu ngi yëkkati naka seenub laajte jëmale ko naka si ministre boo xam ne moom la ñu dénk wàllub kopparub réew mi ki nga xam ne tamit moo fa toogal naka Uppa Saalum mi wuyoo si Alhaji Mbow moom naka ginnaaw doon gaaral kàddoom laaj na naka ki nga xam ne mooy ministre bu ñu dénk wàllu kopparu réew mi ndax si jamono ji ñu ngi tëral naka ay sata pour gis nañ naka fay nañ koppar googu wala sax pour gis ne saafaraal nañ naka jafe-jafe goo xam ne social security ñu ngi ko jànkuwanteel jëmale ko naka ci bor goo xam ne réew maa leen ko amal ministre bu ñu dénk wàllu finance bi maanaam wàllu koppar gi moom ci tontu gi wax ne naka si jamono ji ñu ngi ci am naka ab dellu ginnaaw waaye naka ñu ngi def seen kéemtulaay katan pour gis ne yenn banqaasu nguur gi naka delloon nañ wala sax fay nañ seenu bor yi ci banqaas bi nga xam ne naka mooy social sécurité bi banqaas yoo xam ne nag nguur gaa ko moom wala ñu nekk di liggéey ci ron nguur gi bu ñu sukkandikoo nag ci bor yoo xam ne ñu ngi ko amal social security wax nañ ne nag am na ci ñenn ñoo xam ne ba tey rek ñu ngi fay seen bor yi waaye nag am na ci ñeneen ñoo xam ne fay nañ seen bor yi nag ba pare maanaam ñaari compagnie ñoom si jamono ji nag pare nañ seen bor yi waaye nag yeneen juróom ñaari si jamono ji ñoom ba tey ñu ngi fay nag waaye boo xoolee lu ñu dese nag moo ëpp lu ñu jot a fay. député bu Serekunda muy wuyoo si Halifa saala moom ba mu fa doon gaaral kàddoom Halifa naka doon na kilifa goo xam ne moom it dafa bokk ci comité bu néegu député bi taxawal pour ñu saytu naka doxalinu liggéey yu bànqaas yu nekk di liggéey ci ron nguur gi. moom ci kàddu gu fagaara naka laaj na ministre bu ñu dénk wàllu koppar gi ndax si jamono ji bor goo xam ne naka banqaas yi ñu ngi ko amal banqaasu social security bi ndax naka ñàkk fay gi mu ngi leen di sonal ci seen wàllub liggéey ak itamit ndax mu ngi xajabal naka lu aju ci seen wàllub liggéey bi banxaasu social security bi nag ñu naan ko social security and finance corporation ñu ngi ko taxawal nag ci biir réew mi si atum 1981 ñoom nag seenu matuwaay bi lu mu doon rek mooy taxawul lu aju nag ci yelleefub doomi aadama yi surtout ma nag bu ñëwee ci biir réewub Gambie bi sa social sécurité bi nag banqaas yoo xam ne ñoo nekk di yëngu ci biir réew mi dañ dee fayal nag seen liggéeykat yi koppar goo xam ne nag dañ leen ko faa dencal ba suñu demee nag ba pension ñu delloo leen ko waaye nag si jamono ji liggéey bi nag mu ngi am ab dellu ginnaaw si jamono ji nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllub atte gi ñu ngi lëkkaloo ak ministre bu ñu dénk wàllu bi kopparub réew mi pour gis nag tereel nañ ay sata saafaraal nag jafe-jafe goo xam ne banqaas ba nga koy jànkuwanteel mu aju nag ci seen wàllub liggéey bi mbokk yi ba tey rek ci teewlu goo xam ne ministre bu ñu dénk koppar réew mi teewlu na ko ci néegub député bi di tontu nag ci ay laajte yoo xam ne ñu ngi ko gaaral jëmale ko nag ci mbirub réew mi moom Mamboure Ndiaye wu xamal na nag ne néegu député gi li war a toll nag si juróom-ñetti téeméeri million ci xaalisu dalasi loolu nag la nguur gi ñàkk ci lempo goo xam ne nag teggi nañ ko ci maalo yuñ dee dugal nag ci biir réew mi nguurub Gambie bi naka si jamono jii ñu ngi xamle ne ñoom naka dañu teggi woon juuti bi si kaw naka maalo yi dee bayeekoo ci bitim réew pour gis naka wàññi ne njëgub maalo bi ci biir réew mi te naka sarta bi naka ñu ngi ko tëral depuis ci atub 2018 waaye naka bu ñu bàyyee xel depuis ci at boobu ba tey maalo naka mu ngi gën a yokk ci biir réewub Gambie bi ñi nga xam ne naka ñooy fay seen lempoy maanaam doomi réew mi ñoom ñu ngi continuer naka di joytu njëgub maalo gi yokkute goo xam ne naka mu ngi ko def saa yu nekk te lii naka ñu si joxoñ baaraam kilifa yi mu tax naka ministre bu ñu dénk wàll wàllu kopparu réew mi moom naka muy tontu ci laajte yooyu naka si pencum réew mi. député bu Iliasa moom naka laaj na ministre bu ñu dénk wàllu koppar réew mi muy wuyoo si Mamboure Ndiaye ndax nguur gi naka am nañ ab dellu ginnaaw ginnaaw naka ba ñu teggee juuti boo xam ne naka ñu ngi ko teg ci kaw maalo yoo xam ne dañ dee bàyyeekoo sa bitim réew di dugg ci biir réew mi. mu continué di wax ne ndax sàtte goo xam ne naka moo war a wàññi njëgu maalo bi ci biir réew mi daanaka naka sàtte googu dëgguwul ndax naka maalo gi mu ngi gën a yokku depuis ci atub 2018 député bu Badiboo muy wuyoo si Alaaji Jawara moom it naka yëkkati na ab laajte jëmale ko naka si ministre bu ñu dénk wàllu koppar réew mi jëmale ko naka si satta goo xam ne tëral nañ ko pour gis ne bépp maalo buy dugg ci biir réew mi dañoo génnee naka juuti ci ko maanaam maalo googu du fay naka juuti ci matuwaay goo xam ne nag jël nañ ko pour gis nag saafaraal nañ jafe-jafe goo xam ne nag mu ngi aju ci wàllub dund gi surtout nag bu ñëwee ci mbirum maala bi groupe Gambe bi ñoom naka si jamono ji ñu ne tëral nañ sarta pour gis nag réew mi bàyyi nañ nag lu ñoo dundee fii ba si atum 2025 te kàddu gi nag njiitu réew mi président Adama Barrow moom gaaraloon na ko nag si jamono joo xam ne mu ngi doon campagne ci biir réewu Gambe bi tamit nag benn kàddu gi gaaralaat na ko si jamono joo xam ne nag ñu ngi ko doon inauguré pour mu toogaat ci toogub njiitu réew mi si beneen juróomi at muy xamle nag si jamono ji lii saafara jafe-jafe gi rek mooy ñu bayal suñu bopp lu ñu dundee te mu ne nag réew mi mun na ko kon si jamono ji dina lëkkaloo ak kilifa yi pour gis nag liggéey nañ ci loolu ñuy wax ne tamit lii war a toll nag si ñaari million wala lu ko ëpp ci biir réew bu Gambie bi ñoom naka ñoo dee dugal seen loxo ci bayu maalo bi wax na ne nag bayeekoo si atu 2019 dem ba si atu 2020 lii war a toll naka si téeméer juróom-ñaar fukk juróom-ñaari kilogramme ci ñu jot a bay ci biir réewub Gambia bi banxaasu drug law enforcement agency bi mu doon banxaas bu ñu dénk aju ci xeetu drog bi bu ñëwee ci biir réewu Gambia bi ñoom nag wax nañ ne xeetu drog goo xam ne nag jàpp nañ ko ci West Coast region ak North Bank region boo ko xaymayee nag war na moo dem ba si juróomi téeméeri bondul ci loo xam ne nag mooy xeetu taay. juróom yi ñu tuuma ne ñoom la ñu jot a jàpp gis ne naka dañoo jaay ay drogue ñeent yi naka ay doomi réew yi Sénégal naka kenn kii moo ci doomi réew yi Gambie ñeent yi ñëpp naka si jamono ji ñu ne naka dañ doon jéem a yollale taay gi di ko dugal ci biir réewub Gambie bi mi bayeekoo naka si Sénégal jaarale ko naka si West Coast region mi ci tundu Brikama bi kenn ci ñoom si jamono ji naka kilifa yi jàpp nañ ko ñu ngi ko teg naka ci kaso gi yeneen ñett yi naka ñu wax ne ñu ngi rëcc waaye naka ñu ngi leen di uut gisaanguñ leen xew-xew gi nag am na juróom-ñetti fan ci weeru février si dëkk bu ñu naan Jaakoy Pama mu bokk naka sa Casamance ñu ne ñii naka dañ leen jàpp fekk ñu ngi ci yoon naka ñu ngi doon jàll géej fukki fan si weeru février atum 2022 ñu wax ne tamit yeneen ñaar naka jàppaat nañ leen ñoo ñu ngi doon jéem a yolleele taay gi di ko dugalee si North Bank Region mi si duwaanu Farafeñe gi te ñii naka dañ leen tuuma ne ñoom ñu ngee jaay ci biir réew mi di ko jëlee naka sa Sénégal di ko isi naka ci biir réewu Gambia bi Ousmane Seydi Ba moom mu doon nag public relation officer bi ci banxaasu drug law enforcement agency bi moom wax na ne nit ñi nag si jamono ji dañu am naka benn yoon bu es bu ñu génnee naka bayeekoo ko Casamance du dugg naka si West Coast region muy ci diwaanu Brikama bi Piaro Seydi Ba ba tey rek mu continué di wax ne seenu banxaas bi si jamono ji naka ñu ngi def seen kéemtu lay kattan pour gis ne naka teg nañ loxo nit ñoo xam ne naka ñooñu la ñu tuuma mu ne si jamono joo xam ne naka doon dàqee ñooñu am na ci kenn koo xam metti te si jamono ji naka kooku mu ngi daw ak gaañu googu mu continué di wax ne ñu ngi tëral ay sata tamit pour gis ne ñett ñu leen rëcc ñu jàppale naka ci num gën a gaawee mu ne waaye naka duñ ko mën a def ginnaaw ndimbalu askan wi mu ne kon naka mu ngi ñaax askan wi pour ñu jàppale leen bu dee gis nañ leen wala ñu foog ne ñu ngi nëbbatu ci place nangam mun nañoo jokkalante ak ñoom drogue yu ñu tuuma ne naka yooyu la ñu jàpp ñu ngi dugg ci biir réewum Gambie bi ñu ne naka ci rider lañ leen yéegal te naka ñeenti rider la ñaari naka register wuñ leen waaye naka yeneen ñaari seeni number plate yuñ leen register number plate bu réewum Gambie la. manager bu Gambia ferry service bi mi maanaam banxaasu port bi moom naka mu ne mu ngi xamal doomi réew bi Gambie ni. si jamono ji naka defaraatu féeri goo xam ne naka pare nañ si dina yaxanal naka lu aju ci wàllu dem ak dikk bi mu kontine di wax ne si jamono ji naka féerub kunta kinte ki bukanilaay bi ak ñoxe bi yëpp si jamono ji naka ñu ngi leen delloowaat ci liggéey bi ginnaaw naka bañ leen taxawalee si juróom juróom benn semaine pour gis naka defaraat nañ seenu machine gi management bu Gambia Ferry Service bi ñoom naka si jamono ji ñu ngi wax ne feeri kunta kinte gi naka machine gi dafa màggetoon waaye naka génne nañ machine yooyu defaraat ko naka yenen machine yu ees te lii naka jël na leen juróom benn semaine pour ñu defaraat ko ñu ne naka xam nañ ne ab dellu ginnaaw naka am na ci wàllub dem ak dikk bi waaye naka ñu ngi xamal askan wi pour ñu tàqiloo ak ñoom xam ne lépp loo xam ne rek ñu ngi koo def dañ koo def naka pour gis ne yombal nañ naka mbirub dem ak dikk bi te lii naka bokk na ci matuwaay goo xam ne naka jëloon nañ ko si atu 2007 2019 Lamin Jawara moom mu doon general manager ci banxaasu ferry service bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka ñetti engine yu ees la ñu def naka si ferry Kunta Kinte gi mu ne benn bi naka doon na bu ees goo xam ne naka ñoom ñoo ko moomal seenu bopp mu ne matuwaay goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di jël pour defaraat ferry yi mooy pour yombal naka mbirum dem ak dikk bi mu continué di wax ne am na yeneen féeri sax yu nekk di daw ginnaaw kunte kinte jawara ba tey rek mu continué di wax ne féeri ñooxe bi ak kaneen laa bi ñoom it naka nañ bokk naka si féeri yuy daw ba tey mun ngi continué di wax ne am nañ yeneen fer yu ees yoo xam ne naka jënd nañ ko pour ñu egsi si biir réew mi mu ne ginnaaw sax ba nga xamee ne seeni yu ñu amee naka mu ngi xala màgget te saa yu nekk naka dañ koy defaraat mu continué di wax ne tamit ñu ngi am naka yeneen satto yu ees yu ñu fas yéene tëral ko ci seen wàllub liggéey bi mooy ne naka ñu ngi nar a isi ab app pour gis ne naka nit ñi nañ ko jëfandikoo ci seen mobile yi xam naka mbiru féer gi ak tamit seen wàllub dem ak dikk bi mu ne app bi na jàppale tukkikat yi pour ñuy xam naka waxtu goo xam ne moom la féer bi di yegsi waxtu bu moo dem ak ban féeri moo nekk di dem ak féeri gi fu mu toll mu ne matuwaay gi yëpp dañ ko jël rek pour gis jàppale nañ askan bi ak taxawu naka lu aju si seen kaaraange mu ne ginnaaw sax ñoom am nañ ab dellu ginnaaw si jamono joo xam ne naka ñu ngi doon defal féeri bi ndax naka am nañ koppar gu bari goo xam ne naka ñàkk nañ ko mu ne waaye naka lu war a am la ndax naka bakkanub askan wi moo gën a am solo bu ñu sukkandikoo ci moom mu ne ba tey rek ñu ngi tëral ay sata pour gis ne jënd nañ naka ay feer yi ees gis naka yokk nañ ko si ñooxe ak kanin laay pour naka gën a yaxanal lu aju naka ci wàllu dem ak dikk bi Yankuba Mané moom mi nga xam ne naka mooy public officer bi ci Gambia Ports Authority bi moom naka wax na njëriñ gu nekk naka si defaraatum machine guñ nekk di def féer mu ne ndax naka loolu dafay dëgëral féer yi te naka dina tax pour gis naka nañ askan wi lu aju naka ci mbir accident wala sax di am yenn jafe-jafe ci wàllub yoon wi mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgu tey bi yaata lii ngeen des doon ànd ak Xadijatu Koli di la jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu meññu ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam